salaamaaleykum waa Galsen Tube maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube vidéo yi ñu leen koy defal en wolof ki leen koy defal di Pape Mor Lo euh, ma lay wax ni vidéo tay mi nag boo ko seetaanee da A à euh, boo day comprendre ko respecté ko sa téléphone mën nga ko utiliser comme ni ngay utiliser ordinateur pour def paramétrage canal YouTube voilà chaque jour dama koy expliquer ay nit ci whatsapp bi ñu may envoyé message am jafe-jafe ci euh, téléphone yi mais téléphone ba léegi am na option nooy ko utiliser comme ordinateur defoon naa ci vidéo mais defoon naa ci explication mais dafa nekk ci beneen vidéo ma bëgg nag tey def ci explication boo xam dafay nekk vidéo boppam moo tax ma jël téléphone nii pour expliquer leen ko pour ñëpp ñi nga xamante ni des fois yi may expliquer ci ordinateur lu ñu ko mën def ma leen di wax nag seen téléphone nañ ko des fois def option ordinateur pour yenn réglage yu bëri ñu koy mën def voilà loo xam ne peut-être ay téléchargement ak ay installation mën na compliqué ak ay montage vidéo mais réglage chaîne YouTube euh, paramétrage ak yi ngay def yëpp yoo xam ne bind laa yëpp mën nga ko def ci version ordi version euh, ordinateur si téléphone mobile. léegi c'est très simple boo ñëwee sa téléphone euh, application Google bi il faut nga am ko muy application Google Chrome moo nekk nii ma def carré bu rouge su fekkee amoo ko c'est très simple. da ngay dem fii nga xam ni mooy sa play store boo ñëwee sa play store bu ubbeekoo nga ñëw si barre de recherche bi nga def nga def Google boo defee Google rek mën nga def recherche sax lu ngay def Chrome boo defee Google rek automatiquement indil na la Google. mais bee ci kaw gis nga mu def la Google Google LLC di nga yaa ngi fàttali ko ba ma la doon wan euh, ni ñu defee miniature bi ci YouTube studio Google LLC la indiloon Google LLC mooy compagnie bi nga xam ne yépp lu aju ci application yu Google yi ñoom ñoo koy defar di ko def ci euh, plateforme téléchargement yi muy Play Store wala muy App Store voilà ah, pour ñuy utiliser iPhone App Store la ñuy la ñuy installer ñuy utiliser Android ñoom ñooy utiliser Play Store. léegi da wàcc ci suuf ba ñëw fii bi ñu bind Google bi ñu bind Chrome Chrome rapide et sécurisé voilà Chrome rapide et sécurisé mais bu ñu ci bindee Google Chrome kese moom la ba léegi l'essentiel compagnie bi ko dugal na nekk Google LLC voilà léegi nga cliquer ko moom laa def carré bu rouge nii mooy application Google Chrome bi ñuy installé nga cliquer ko gis nga boo ko cliquer man dama kaa installé ba pare moo tax daf may demandé ndax damaa bëgg a def mise à jour parce que installé naa ko ma cliqué waat ko mu ne da ngaa bëgg a def mise à jour maanaam da nga ko bëgg a réinstallé waat léegi mais yow bu dee nag yow kii euh, kii woo installé ko ko dalay lay defal fii installé nga cliqué installé nga installé ko soo ko installé ba pare ñu génn demaat fale léegi nii lay mel ci sa écran moo nekk nii léegi da ngay ñëw nga cliqué ko soo ko cliqué. gis nga bii ngi canal YouTube bu ma doon xool la gis nga maa ngi ni doon ko xool benn euh, abonné ci canal bi bàyyi Cheikh Lo canal am mu envoyé ma lien bi ma koy xool ba xam canal bi nu mu tëddee ak lu si nekk. léegi da ngay ñëw si trois points yi nga xamante ni moo nekk ci kaw moo nekk trois points yi ngay gis ni dama def carré bi foo duggee Google ci appareil boo ko mënti duggee trois points yi boo xool di nga ko ci gis muy trois points yoo xam ne option lay tekki da ngay koy cliquer. nga soo cliquer indil na ma benn fenêtre ubbeeku na fenêtre ubbeeku kat yu bëri la la siy bindal waane da ngay défilé fenêtre boo tegee sa baaram di pouce da ngay défilé boo défilé di nga ñëw fii ñu bind version pour ordinateur voilà site internet bi nga ubbi fii kat damaa bëgg site internet bi version ordinateur mu laa soxla soxlawuma ab version application parce que site internet yépp léegi dañoo am version pour mobile adapté ko pour mobile ak version bu ñu adapté ordinateur soo ko ubbee ci ordinateur version ordinateur lay indi soo ko ubbee ci téléphone mobile mu indi la version téléphone mobile te ñun comme dañoo yor téléphone mobile te bëgg a liggéey ci version ordinateur il faut nga demander téléphone bi nga ne ko man site internet bi version ordinateur am laa soxla moo tax fii ñu def version pour ordinateur am na case bu mu dendal nii case bi ngay cliquer boo ko cliquer automatiquement gis nga affaire bi day chargé pour def ko version ordinateur doonte man moom laa ko defoon ba pare sax. mais bu dee defagoo ko boo cliqué di nga gis su la indilee YouTube bi di nga YouTube bi dina changé par rapport ak ni nga gis moom la meloon voilà gis nga xam nga si amul changement parce que man defoon naa ko pare. léegi bu la indilee version ordinateur bi c'est très simple léegi da nga koy zoomé sa ñaari baaraam ngay teg ci écran bi comme ni ngeen di zoomé rek bu ngeen di seetaan téléphone loolu je crois téléphone yëpp war nañ ko xam. boo yor téléphone seenaan dara te bind yi sew parce que boo xasee ne vers or version ordinateur nag inconvénient bi mooy bind yi dafay sew yow yaay teg sa baaram di zoomé li nga bëgg a def il faut nga zoomé voilà il nga zoomé voilà il faut mu nekk léegi da ngay zoomé gis nga nga daal di xëcc boo zoomé après ngay xëcc di pousse ba fi nga bëgg gis nga ma zoomé ba pousse angle bi ñëw léegi nga logo bi comme ni ma leen ko waxee chaque ordinateur boo cliqué logo bi gis nga mu la comme YouTube norme ordinateur bi gis nga lii nii xam nga ci mobile doo ko gis. waaw bu dee yaa ngi sa YouTube si mobile du du génnee bee nii lii ci ordinateur lay génn gis nga su ko defee booy changé canal nga cliqué fii boo bindee YouTube bu fekkee da dem YouTube studio nga cliqué fii gis nga YouTube studio xaama cliqué mooy carré rouge ma def nii nga cliqué ko da ngay am même am ko version ordinateur da nga ko koy am fii te yoon te YouTube na application bi ma leen bi ma leen doon euh, wan keroog ci miniature bi terewul gis nga YouTube studio gis nga. YouTube Studio ji nga yow bu fekkee yaa ngi koy utiliser si ordinateur yow gis nga nii lay ubbeekoo voilà c'est très simple nii lay ubbeekoo gis nga bu lay da dee demee nag yaay xool li nga bëgg gis nga à droite gis nga li mu la fooroon indil su fekkee da ko résumé fii à droite ñetti traits ci kaw soo bëggee lim résumé nii di génn wala muy duggeeku ubbeeku ñetti traits ngay cliqué gis nga soo ko cliqué gis nga ubbeeku na comme ni muy mel ci ordinateur ubbeeku na ni mu lay defal tableau de bord defal la vidéo playlist données analytics commentaire sous-titre monétisation bibliothèque gis nga soo demee ba ci suufa suuf gis nga Creator Studio Classic bi gis nga indi na la ko fii tamit ba léegi mun nga dem ci Creator Studio Classic mooy fii ma def carré bu rouge bi ñu cliquer ko bu dee ñu nga ci ordinateur boo ko ubbee nag fii lay topp ci bibliothèque audio bi ci suufam rek lay nekk parce que ordinateur la mais bu guddee gis nga ca suufa suuf lañ koy def il faut nga pousse pour gis ko mën nga ubbi mu yem fii nga defee ne nekku fi quoi fekk yaa puusul ñu xaaral mu ngi ni ci suuf mooy kii mel ni nit buy daw dugg ci bunt ba léegi suñu cliqué woon euh, si trois points yi mu ubbeeku voilà su trois points yi tëjoon nag gis nga dalay ay symboles yi fi nekk rek la la fi defal bind yi lay dindi voilà gis nga ñu cliqué créateur studio classique ngeen xool gis nga bu buñ ko cliqué gis nga daf ñuy demandé xam nga ndax li tax raison bi tax nga bëgg a jógee YouTube euh, studio bëgg dem ci YouTube bu njëkk bi mais man du ma joxe explication damay def cliquer fii ñu def passé fii ma def carré bu suñu bind passé fa ngay cliquer sama vidéo yi ma mujjee seetaan bu fekkee seetaan yi ma mujjee def bu dee seetaan ngeen ko di ngeen gis expliqué naa ko si gis nga léegi gis nga indil na la créateur studio euh, kii créateur bu classique bu njëkk bi gis nga version bu njëkk bi la leen indil voilà gis nga yëpp ci ordinateur nga koy gisee nii waaw li ngay gis nii bu may expliqué ci ordinateur bi ngeen koy gis te fu mu nekk yaa ngi koy gis nii ci chaîne bi voilà yaa ngi koy gis nii ci chaîne bi léegi loo bëgg a modifier mën nga koo ñëw fii nga modifier ko paramètre chaîne bi gis nga nga ñëw fii chaîne gis nga boo ñëwee chaîne gis nga fii nii ci paramétrage bi xam ngeen ni ci du du du du du ngeen koy gis seen téléphone yéen a koy gis en ci li nga xamante ni moom mooy euh, ordinateur wala mais gis nga nga zoomé à gauche xool gis nga bindal na la sous monétisation paramètre par défaut des vidéos mises en ligne branding nga paramètre par défaut vidéo mise en ligne nga cliqué ko gis nga indi na la paramètre par défaut gis nga boo zoomé di nga mu demal demande la nga choisir di nga pays mot clé yi yaa ngi gis ni xamal dézoomé ko pour nga pour mu gën a leer voilà information yi ngay gis si si internet bi yaa ngi koy gis fii ci ordinateur bi yaa ngi koy gis fii voilà voilà so fii boo ñëwee fii gestionnaire de vidéo gis nga gis nga gestionnaire de vidéo yaa ngi gis ni vidéo yaa ngi nii voilà moom boo fi ñëw il faut da ngay zoomer di dézoomer parce que du bokk ak euh, euh, kii bi euh, vers YouTube studio parce que version ordinateur nga indi ordinateur lépp la lay génn en même temps fii tam da lay génnoon lépp ce qui fait que bind yi dañuy ndaw loolu mooy inconvénient bi léegi j'espère que comprendre ngeen nu ñuy utiliser li nga xamante ni mooy YouTube ñëw si version bi nga xamante ni mooy version ordinateur voilà c'est très simple YouTube Chrome bi Google Chrome ngay installer soo installé Google Chrome boo ko ubbee automatiquement c' est très simple bu ubbee ko nii trois points yi ci kaw ci Google Chrome fa ngay dem par exemple xaa ma ubbi ma def euh, nouvelle page bu bees ba ba ngeen comprendre waaw gis nga mi ngi nii gis nga léegi fii ngay ñëw ñetti points yi ngay ñëw nga def version ordinateur voilà su ko defee gis nga boo cliquer benn site gis nga ma cliquer gis nga Sénégal version ordinateur Sénégal la may indil. te su kon defuma loolu fii cliqué wuma ko gis nga soo ko dindee di nga bu chargé version mobile la may indil nii gis nga leer na n'est-ce pas nga Senego boo fekkee sa téléphone nga di ci dugg gis nga nii lay fonctionné version mobile la nii lay nii lay nii lay demee voilà mi ngi nii nii lay def nii ngay def mobile moom nii ngay def di défilé di dem rek di xool di défilé di dem di xool voilà mais boo defee léegi ñëw ñu trois points yi voilà boo defee ñëw trois points yi si kaw nga cliqué ko. ñëw version pour ordinateur bi nga case bi nga sélectionné ne ko mu nga wax sélectionné yi ngay chargé waat voilà amu chargé gis nga bu chargé jeex na indi na la version ordinateur gis nga ni nga koy gisee léegi voilà xam nga doon feeñu nii sànq voilà loolu feeñu nii jeex na ngi ni si lépp ngi doon nii daal la ñuy defee euh, version ordinateur ci Google Chrome kon ma leen di sant leen gërëm ci seetaan bi ngeen ko doon seetaan ñi nga xam ne daal téléphone kese lañ yore bokk ci di lu bari ñu ko si bëgg def lii dina leen dimbali dina am yu tax yu bari yoo xam ni suñ ko gisul su ma ko expliqué ci ordinateur bu ñu duggee fii dinañ mën a euh, nan lañ koy defee quoi di leen sant leen gërëm seetaan bi dañ si beneen vidéo incha allah rabbi jërë ngeen jëf. ma lay demandé nag su fekkee nag euh, abonné goo ci canal bi. boo cliqué ci fii ci bouton bi G bi boo ci cliqué rek mu génn la bouton bi ngay abonné nga abonné su dee abonné nga ba pare nag cliquer vidéo bi nga seetaan ko mooy vidéo biñ mujjee dugal moom it ay mbir ngi ci ay tips ak ay secret